sur le plan international vous euh, demee ba signé ko bu euh, traité bi lu mu prévoir mu ëpp gëdd mu loi nationale ak traité donc ci traité. Vous moi arrêté bi du dëgg du yoon donc lu ci bi bu daf leen ñu leen bu baax itam maître am mbégte dalaat ko fii alors maître sànq maa ngi dégg nga ni le 25 lañ leen waroon woo ci diggante bi lan moo tee sa xel. Oh, le 25 la ñu dugaloon recours. voilà bu nga xam ne euh, loi organique bi dafa ne dañ ko war a arté ci ñaari fan parce que référé liberté lañ dugaloon référé liberté ci tënk moom mooy lan moom mooy dafa nekk une procédure d'urgence dafa am ay droits yi nga euh, titre constitution bi moo ko garantir ñu woowee ko droit fondamental droit de vote c'est un droit fondamental donc si arrêté bi day décision wu cour de justice de la CEDEAO bi nga xam ne dafa ne parrainage àndul libre participation maanaam day teg ay galgal ak ay dëgg sërëx bu ñu ko dekkalee rek moom mooy porté nañ atteinte à ce droit de participer aux élections d'accord donc léegi nag ba ñu jógee foofu moom mooy ba ñu ko tegee ci ñaari fan yi ci teg normalement moom la yoon prévoir ndaam délai yi nga xam euh, yoon daf ko prévoir duñ ko respecter toujours dama japp ni euh, ñaari weer néggandiku dafa nekk lu ëpp ci loolu ci question bi nga xam ne c'est aussi crucial comme nous l'avons ko waxee pour la stabilité démocratique et la stabilité et la paix sociale. d'accord irrégularité yi ñëpp constaté dañ ko alors wax nga ni euh, suba cour suprême dina weñ peut-être espérons que dina ko weñ bu fekkente ni loolu moo am kon mën nañ jàpp ni élection yi dañ koy dàq waaw euh, loolu du mën parce que euh, su dee wax nañ droit rek maanaam arrêté bi moom dañ koy neenal loolu lu leer la li ma la wax délai parce que comme ndeyu mbill bi mooy arrêté bi maanaam acte yi nga ne yëpp la depuis le 3 mars ci le la coup, bu cour suprême neewee li nga xam ne mooy ndeyu mbill mi maanaam méngoowul ak yoon lepp li nga xam mo ci joggé wala mo ci juddoo manam dañ koy nénal donc ci tënk pour répondre directement élection yi du mën nekati le 31 juillet ça c'est évident D'accord. alors euh, bari na ay jambat yu opposition bi di di def gis nañ itam DG euh, direction générale des élections à travers le ministère de l'Intérieur, acte ñu posé bokk na ci organiser waat coalition yi jox leen ay jetons euh, pour ñu vraiment organiser mbiri mais gis nañu ni amna na xow bu reuy est ce que lool itam mënuñu ci doute baramu touba opposition que ñom lu leen tek dañ ko nangu waaw ñun moom loolu aussi lu tax déggu leen ñu ci euh, euh, ci la bokk. ñun dañu jàpp ni euh, boo demee di xeex ba ñu jox la dëgg doo ñëw di suufeel sa bopp. maanaam boo jàppee ne yaa ngi ci dëgg doo ragal ñun dañu jàpp ni Macky Sall nekkul ci dëgg nekkul ci yoon.

Euh, manam luñ doon xaar ci moom def na ko maanaam mbirum parrainage ak rejet sax du am. Mhm. et que loolu yamul ci cour suprême kese. parce que euh, ba ñu rejeté liste gëm sa bopp manam ci recours ba ñu dugal ñoom argument boobu développé nañu ko. Mhm. et puis mu am ci lu doy waar. parce que dañu ñëw ba ñu développé que logiciel yeeg yooyu yëpp am na problème fiabilité et que nous, am ay nga électeurs mais ay électeurs lañ ci de toutes les façons euh, mbirum parrainage waru ko sax wax mhm. ñu conseil constitutionnel la sas mbir leen di wax est-ce que Macky cour de justice de la CDAO, nous na supprimer le parrainage mu non seulement defumako mais damay tegaat benen arrêté est-ce que arrêté boobu mën nañu ñew daw ci ginaawam mais ñom dañ ko teg entre parenthèses ma jéxal mhm. mais non non manam décision ba nga xamné ne la ñu notifié. Euh, mandataire gëm sa euh page yoyu feeñu ci. Mhm. il a fallu que ñun. Mhm. c'est-à-dire dañ ko dañ ñoom nañ dañ ko faté mhm. manam mbir ma maanaam kenn bëgg ko won tuddu parce que mhm. comme xam nañ ne bo waxé droit mom dañ ñuy jox dëgg. Euh, il a fallu ñu né leen ah dañuy dugalaat gëm sa bopp dugal recours en omission de statuer mais elle est ngeen ci poñ yi parce que juge bi loo ko laaj bu ci nekk daf la a tontu. d'accord ñaari liste. Euh, bu yeewi ak bu Nous ñu gis ni dañu a dem ci ay élections bu fekkente cour suprême wax na le contraire kenn ku nekk xaaju liste nga mën a euh, euh, conseil constitutionnel wax lan la ci droit wax lan la ci loi bi wax mais xam nga bala nga yegg sax ci conseil constitutionnel comme lu ñuy wax nit ku nekk sa xel doy na la maanaam mënoo ñëw di wax titulaire sans suppléant mm-hmm. Madame euh, plutôt suppléant sans titulaire mm-hmm. Madame pour nga nekk suppléant yow tu es suppléant de quelque chose donc loolu xel mënu ko daj mais conseil constitutionnel ci point bobu meun nañ japp ni waxuñu lu droit prévoir bu ñu xoolee article 149 et suivant de la euh, du code électoral euh, dañu ne euh, la liste est composée yaa ngi dégg. on mhm. lay dégg sujet verbe complément. Mhm. lu ñu njëkk a jàng école. Mhm. maanaam la liste est composée maanaam benn liste courte la. après est composée ca biir la ñuy décomposé nag. ne am na titulaire am suppléant mais logique bi.

Nous ngi nuyu également Ndeye Diamet euh, nuyu euh, maître euh, gëjoon nañu la gis c'est un plaisir de vous mm-hmm. recevoir. alors yaa ngi wax ne fi yegg reporter ces élections législatives ñu bari jàpp c'est un c'est un processus boo xamante ne ci la ñu nekk bu législative. 2024 euh, c'est la présidentielle et que maintenant, na euh, euh, indi incidence ou une conséquence ci li nga xam le calendrier électoral Madame l'alte élection yooyu bu Boba, naka lay nan reporter ces élections sans pour autant mu toucher dara ci li nga xam élection présidentielle 2024 mais de toutes les façons man depuis que njëlbeen moo tax jëmuñu ci sax perte temps wala di mobiliser ay moyens hmm. dañu jàpp ne Macky Sall euh, nekul won ci logique organiser élection dafa ñew taxaw di tapas di tégaté ay tank pour indi coow parce que sinon bu dul lolu euh du wat di dekkalaat di ñu tegalaat parrainage euh, légui comme ni nga ko wax boudé euh manam euh, nénal nañ arrêté bi dana am ay jeexital ci calendrier électoral bi mais effectivement qui fonctionnement wu institution bi yu ci njëkk moom mooy effectivement dinañ am benn parlement bi nga xam ne dafay jeexal léegi bu ñu organiser wul élection yi ci délai yi il va falloir déterminer ci sooru parlement boobu wala ban organe législatif mooy jël en charge fonction bi nga xam ne moom la assemblée nationale doon exercer euh, beneen bi nag moom mooy élection présidentielle yi wax 2024 mais donc, euh, Lolo, il faut, va falloir déterminer soit euh, il faut que nous organiser élection présidentielle anticipée man loolu laa gëm parce que Macky Sall euh, ci yoon waratul Nek, ci bopp bi. Mhm. présidentielle anticipée. comment aussi. non mais parce nous que nous sommes nous sommes dans dans dans une non. démocratie aussi. non mais démocratie yon moo ko lal nga Macky Sall. ça c'est vrai. Euh, bu ñëwee toog pare tëju kenn mënul ñëw génnee mhm. mais yon moo ko fa bàyyi. Mhm tey ku ci nek bu mënoon du respecter yoon day def lu ko neex comme num ko waxe ci cdao bi mais tay du fa du fa fanan. Mhm. donc tay ñoom amuñu sax intérêt ñuy fragiliser li nga xamné mom la yoon prévoir wala yoon mom la tek. tey décision cour de la justice de la cdao ñom ñoo la gën xamné ça s'impose ya Jammeh ma nga xamné man bokk ci ñuko ko parce que nekkoon avocat opposition bi pendant tout le processus Mom Madame, le cours de justice de la CDAO, yi daf ko dañ de dictateur intervenir nañ nañ ko mu mais vous daf ko c'est un non-sens politique et logique nga ñëw vous ne duñ ko vous tay bu ñu taxaw moy euh dañu bëgg a dëkk bi ci parce que mom bu ne dina ñëw euh, né day def lu ko parce que Tay Macky Sall peuple bi nga en 2011. Mhm. pour nous bañ a institution bañ a suñu constitution mais peuple boobu ba sans ci suba génnul Sénégal mu ngi fi donc conseil constitutionnel est gardien de la constitution mais le peuple est gardien ou gardien parce que la démocratie la justice est rendue au nom du peuple euh, yaa ngi koy wax sank que ne waruñu ko won sax nangu parce que le processus électoral ñu bari japp nañu ne processus bi euh, dafa chaotique manam li ci yàqu dafa bari euh, opposition bi gis nañu ne au départ dañu waxone ne duñu nangu parrainage ñu dem ba ci digg bi c'est la société civile même ñu doon organiser ay manifestations pour dire non au parrainage est-ce que da nga jàpp ne ñu xex bu war ba tax ñu dindi fi parrainage